asalaamaaleykum internet Sénégal alors ñu dalal koo xam ne nag namoon nañ ko daxaw ma daa gàddaay yoon ñu daa toog nañ gisatuñ ko gisuñu photo gisuñu dara Disco France mu muy suivre cours yoo xam ne xamuñu lan la ak yooyu moo tax ñu ñëw waxtaan ak moom nag mu ñëw Sénégal euh, quelque temps tey dellu xaw ma ñu est-ce que day toog xamuñu dinañ ko laaj après gi gi ma bàyyi la ak ñu ngi ñëw ak internet Sénégal namoon nañ la. maa ngi raw bu baax Aïda maa ngi kontaan trop ci invitation bi. Euh, di nuyu internet Sénégal ah Sénégo mi nga xamante ne maintenant c'est international di wax rek ne euh, fan yi maa ngi nii ah man gi xaw ma Aida fan la xamee ne maa ngi fi moytu leen ma Aida dégg nga. <laughs> alors yaa ngi fi Sénégal ñu jékki-jékki gisatuñ la gisatuñu Guigui ci lu mu nekk activité musique bi gisatuñ la daal jékki-jékki daal dafa mel ne wër naa la Grand Yoff dugg mixta yëpp man daal gisuma Guigui fu mu nekk euh, fan si lan nga doon nga temps yi. waa xam nga àddina boo ci nekkee eh, dafa laaj parfois nga làq tuuti liggéey eh, man nag eh, comme yàlla defoon ma defi benn série même avant série bi sax jotoon naa dem France def benn stage en cinématographie donc Covid bi nag moo taxoon sax mu jéem a def formation bi ma ñibbi si Sénégal parce que Sénégal mooy suñu dëkk te moom la ñu am boo toogee bitim réew Covid ba téye la fa tënk la fa. day nekk loo xamante ni euh, lu doy waar lay doon moo tax ma daw si woon ñibbi si bi yàlla defee nag euh, vraiment lépp euh, lépp lépp baax ah lépp wàññeeku sax laay wax ma dellu jàng def sama formation en cinéma oui. Mm-hmm. en France cinéma kon nga fay suivre lan moo la motiver lan moo tax nga ne choisir kii boobu noonu. xam nga man dama nekk nit koo xamante ne bëgg diplôme loo xamante ne dama koy def rek dama ko bëgg a jàng talent bu fi nekkee. donc bu fi nekkee ak euh, pas-pas bi ak motivation bi foog naa ne li nga xamante ne moo koy globaliser li nga xamante ne moo lay vraiment maintenir ci milieu bi mooy nga def formation nga am si sa diplôme. te gis naa ne vraiment école bi ma demee 2019 defi stage mu nekk école bu baax école internationale acteurs yu mag yi nga xamante ne ñu ngi leen di seetaan à travers le monde foofu lañu jóge loolu moo ma gën a motiver moo ma gën a encourager à que ma inscrire fa def formation bi. donc euh, voilà ma dem pour jëli xam-xam rek indiwaat ko sama réew. Mhm. alors gis nañ ne si si série bi nga joué boo xam ne euh, da nga ko réussir si personnage bi nga joué ci Lemzo Chéri euh, est-ce que mënu woon toog Sénégal tamit nga xam ne am nga fi ay fans ak yooyu noonu suivre sa formation fii pourquoi nga nga choisir dem ba France alors ko fii y a des yoo xam ne mu nga suivre li nga bëgg. non parce que su fi amoon dama fi toog def ko. Mhm. li gën a tax ma dem sax. parce que dafa nekk euh, samay si bokk si samay projet vraiment ubbi école de formation que ça soit musique que ça soit le cinéma te foog naa ne dem wuti xam-xam li ñuy wax rek jàmbaar daw dafa wuti doole dem wuti xam-xam dafa am solo amaan na su ma ko fi gisoon Sénégal duma dem ba France di ko fa jànge parce que suñu école boo xoolee euh, multinationale la donc euh, ñi nga xamante ne ñu may suivre à travers sama TikTok sama Instagram Facebook et Snapchat donc gis nañ ne tout le temps je publie des euh, des cours dañuy gis façon xeet bu ne américain chinois ñëpp a fa nekk daal booy xool sax man maa fay seul africain. Mhm. afri afri africaine sax laay wax euh, bu fa nekk seul noir ah suñu classe booy xool ma donc man maa fay noir bi donc loolu fierté la parce que euh, li ñuy wax rek léegi dañoo toll ci mondialisation boo xamante ne lépp loo bëgg a def rek te nga bëgg ko am moyens yi mën nga ko def. donc euh, seen une boo xamante ne c'est pas donné à tout le monde je me suis euh, je me suis permise tous les moyens ba nga xamante ne euh, dem naa fa jëm naa fa wuti xam-xam te vraiment du pour exercer foofu su ci amee tam baax na parce que bu ñu amee actrice sénégalaise bu nekk France wala bu nekk États-Unis di fa jouer dafa neex mais man li ma gën a motiver mooy dem wuti xam-xam ñëw jox ko xale yi parce que gis naa ne léegi. milieu théâtral bi ak cinéma bi dafa am doole Sénégal. Mm-hmm. donc euh, boo amee doomu sénégalais bu dem wuti xam-xam pour ñëw transmettre ko ñi nga xamante ne ñooy population sénégalaise bi nga xamante ne dañoo bëgg a donc loolu foog naa lu baax la. Mm-hmm. mu mel ni yaa ngi wax école bi c'est école bu am tour la ak yooyu noonu xam naa fay payoor bi war naa cher naa mensualité bi un la. <laughs> waa sant yàlla parce que ñun dañoo nekkoon xale di liggéey donc di liggéey pour suñu avenir. comme ni ma ko waxee rek man bëgguma euh, di ne bien vrai que ça existe autodidacte mooy talent bi nga xamante ne ko judduwaale. Mm-hmm. talent bi nga xamante ne da ko am ci taa bi mais formation dafa am solo lépp lu mu laaj rek euh, euh, dama ko ciy def donc sant yàlla bu baax ah, ak samay waajur yi nga xamante ne ñoom tam ñoo ma ci jàppale. mais seen une boo xamante ne vraiment c'est pas donné à tout le monde mais sant yàlla yàlla mi may suturaal. maa ngi fay jaay mensualité bi ñaata la ngay fay par. non <laughs> ko <laughs> amul solo. Mhm. amul solo foog naa li ci am solo rek mooy li ma motiver ba ma dem fa ak li ma fay jëlee ak li may indi sama réew. Mhm. foog naa ne moo moo am moo am. moo am solo sant yàlla mi nga xam ne comme ni ma koy waxee rek moo ma ci moo ma ci jàppale tey ba ma mën fa dugg. loolu c'est une fierté c'est euh, à chaque fois quand je me euh, Euh, ci prof yi nga xamante ne ñoom la ñuy am à chaque fois. Mm. Euh, c'est une fierté de dire que je suis sénégalaise euh, je viens du Sénégal après da nga gis prof yi ne ah xam nga parce que mm-hmm. ñoom pour ñoom ku ñëw France rek da nga ñëw pour immigrisme da nga ñëw wut si mais bu ñu gisee ku jógee Sénégal France école bu toll noonu xam ne ñoom Marion Cotillard ñoo fa ñoo fa génne ñoom Johnny Depp xam nga des acteurs yoo xamante ne international mm-hmm. benn sénégalaise ñëw ne Sénégal laa jógee pour ñëw jàngi si loolu da leen di jaaxal. foog naa ne àddina bi sax dafa toll foofu léegi vraiment ñi ñu wowuñu limité wu ci li ñu li ñu am mala ci fi ñu nekk ñoom dañuy dem fu nekk di ñëw si ñun di donc pourquoi pas ñun ñuy dem ci ñoom. alors boo jàngee loolu yëpp est-ce que tey nga def formation fay si sa xaalis est-ce que doo xeeb tamit cachet yi boo ñibbisee ñu <laughs> bëgg laa jël ci benn rôle doo xeeb suñu cachet yi parce que cachet yi fii dafa am problème. non vraiment euh, euh, nit da ngay def la part des choses en fait parce que extérieur ak Sénégal munu nekk benn. Mhm. <laughs> y' a même pas photo en fait y' a même pas photo mais yow yaay bëgg sa réew par euh, patriotisme da ngay da ngay da ngay jéem a nekk ci benn production boo xamante ne voilà pour. pour wan xale yoon bi pour wan ce jeu d'acting naka naka la donc foog naa loolu c'est le plus important mais euh, voilà cachet bi moom c'est à aussi. Mhm. donc kon moom bu na comprendre danga dem former wul pour ñëw former ñi nekk fii. exactement donc euh, li nga xamante ne moom a njëkk motiver. Mhm. c'est ça mais tamit euh, li ñuy wax rek bépp artiste bëgg na ñu xam la sur le plan international. donc tey même France tey su ma amee casting muy bi yeneen dëkk parce que les cours c'est en anglais en français. donc euh, dalay permettre nga nga mën a bilingue euh, voilà donc euh, même su ma contrat feneen fu dul même Niger yaa Ghana pourquoi pas. Mhm. mais lépp rek drapeau Sénégal ma moo ma tax a jóg man je m'oublie parfois. Mhm. damay fàtte Guigui Sarr donc je me dis je suis sénégalaise donc comme ni ma ko waxee cinq ans je me présente je ne me limite pas à dire que Guigui Sarr je dis euh, je suis une artiste sénégalaise qui vient du Sénégal pour venir faire ses études ici en France voilà. ba gars yi gisee vidéo yi nag ni nga partagé sa sa sa say cours nee musique bi doxul gi gis sa musique doxul moo tax nga changé bëgg a nekk actrice bi moom doxoon na xàmmee woon nañ da si musique bi sa musique da daw parce que gars yi gars yi nekk fii nii euh, dañoo duñoo jël accaparé musique bi yow nga nga nga bàyyee leen ko daal ne xaaral ma dem xool beneen beneen kii daal dem nekk actrice wala yooyu noonu. mën xool feneen comme saturé wul foofu non pas du tout parce que euh, artiste dëgg da ngay polyvalent boo xoolee Beyoncé euh, joué na Dream Girl te pourtant c'est une chanteuse boo xoolee ñoom R. Kelly yi ñoom toutes les artistes yi nga xamante ne sont des artistes internationaux euh, dañuy jouer film. man soo gisee ma dem jàngi parce que bëgguma di dugg ci film parce que ñoom Beyoncé ñooñu balaa ñuy jouer film dañuy def ay cours d'acting comme li ma la wax rek dama bëgg international bëgguma toog ñuy naan action coupée xam nga ngay def loolu la neex. Mm. bi ma nekkee fii di jouer ñëpp di apprécier bi ma demee fee laa xam ne am na lu bari lu des bien vrai que euh, defuma comme sama sama classemates yi mooy sama camarade de classe yi ñoom euh, depuis xale la ñuy nekk ay cours Florent ay théâtre et tout man rek maa fa nekk koo xamante ne musuma def cours musuma def cinéma ma ñëw fa. Mm-hmm. vraiment mu nekk loo xamante ne aussi euh, ça a même surpris parce que sama jeu apprécier nañ ko mais am na lu des am na lu des parce que dañ may wax loo xamante ne dama ay faay la woon yoo xamante ne dama ko def fii bi may joué te xaw ma ko ñoom jàngal nañ ma ko donc euh, voilà en général euh, c'est ça mais euh, j'avoue que ne li ma gën a permettre temps bi ma dem mooy waxuma sax sama musique mais musique sénégalaise ci boppam moo doxul parce que gis nañ bi ñu jógee ci Covid bi y plus de concert y plus de soirée te man ku ma xam-xam ne dama dem concert dama doon soirée Covid bi bi mu ñëwee amatul concert amatul soirée boo dëmmalee concert ñu ne am na traité bu génn nee nañu bu ñu def rassemblement donc du coup man bëgguma perdre temps sama vie en fait man bëgguma toog di xaar parce que je suis pas comme ça je suis pas éduquée comme ça aussi raison pour laquelle ma ne naa jël temps bi parce que je me suis inscrite depuis 2019 ah. Mm. depuis 2019 école bi chaque jour ñu yónnee ma mel école woon dem parce que Covid bi fii Sénégal lépp a taxawoon. donc euh, moo tax ma xaar ba léegi ma dem mais euh, voilà art ak euh, c'est l'art en fait la musique le cinéma le théâtre tout ce qui est art foog naa ne artist war na bu la woowee ci fenn rek nga wuyu. loolu mhm. mais Guigui nag am nga fi ay fans yoo xam ne loo génnee dañ koy déglu yow la ñuy xaar nga génnee dara nga ñu déglu ko nga toog fee parce que dafa fa un def cours est-ce que lan ngay bàyyeek say fans ñoom ñu la bëggoon ci su côté musique bi. mais fans yi ñi ngi ñi ngi enjoy sama album bi génn 2020 muy album esprit <laughs> fans yi ña ngi koy enjoy ñi ngi koy enjoy mi ngi ci Amazon mi ngi ci iTunes mu ngi fépp. donc euh, ouverture dafa am solo xamuñu lan moo ñu yàq dañuy bëgg a toog rek ancré toog boo amee racine euh, dafa laaj nga meññ parfois garab bi sax ah, branche yi génn fruit yi génn. mais ñun dañuy jël suñu racine rek gas ko suul c'est pas ça il faut nga génn parce que boo demee euh, euh, même danga ñëw jàngi si mais boo nee artiste laa rek loolu rek dalay yokk visibilité parce que da ngay gis école beeg euh, seen salantu ñëpp ku ci ne en ah, artiste dugg xool ah xool ak ah, Guigui Sarr ah ouais xool dugg jënd sa album loolu rek c'est en plus en fait mënuma toog rek Sénégal ne Sénégal laay yem man dama bëgg sama tur Guigui Sarr wër àddina àddina comme ni ñu koy waxee wër nga képp xaw ma wër na képp lañ koy waxee. <laughs> dama bëgg sama tur wër moo tax euh, bëgguma am limite j'aime pas man j'aime prendre des risques en fait voilà. Mhm. pour euh, vraiment montrer l'exemple à la jeunesse que ne euh, àddina yemul fii voilà y a demain y a après demain ouais. kon nu est yaa ngi prévoir tamit côté musique bi ay sortie wala production yu bees wala. am album esprit bi certes euh, génn na te bu mu génnee Covid euh, gars yi ñu ngi koy consommer ba tey mais est que côté musique aussi am nga loo xam ne prévoir nga ko pour ses waaw album esprit euh, donc jotoon naa génne benn clip au mois d'octobre muy yaay maa ngi préparé beneen incha allah léegi rek ah number one moo naka génn incha allah donc bëggoon naa ko génne bu yàgg mais pour des raisons personnelles. Mm-hmm. ñëpp xam nañ ne j'ai perdu récemment mon grand frère. au mois de décembre donc loolu gën na sax tax bëggatuma woon def benn sortie mhm. parce que xam nga ne deret dafa fort ma koy ñaanal fi mu jógee gënal ko ah ah fi mu jëm ci boppam gënal ko fi mu jógee. Mhm. Eh, donc mu nekkoon ko sës si man maa moom ñu dëkkoon donc euh, bi may dem ma bàyyi ko fi mu nekk en très très bonne santé ma ñibbi si euh, fekk ma ko fi loolu da neexul ci xol aussi loolu gënoon na ma gënoon na ma stoppé. Mhm. parce que tamit euh, dañuy naan àddina la ci àddina la ah li ñuy wax ñëkk gën a méttile amul euh, bees la rek moo am donc loolu gënoon a tax aussi ma jël tuuti sama recul concentré wu samay études. <laughs> léegi euh, études yi jeex na wala da ngay delluwaat. non études yi jeexu dama jël <laughs> vacances. ma ne xaaral ma ñëw sees si waa Sénégal. ah d' accord ma ko waxee rek Sénégal mooy sama réew te dama ko bëgg. <laughs> alors de France bu études yu jeexee bu bu bu musique bi bu ñu ko tegee fee de loin lan ngay xoolee actualité sénégalaise instant bi. lan moo la ci gën a marqué par exemple. bon actualité sénégalaise euh, j'avoue que nag dama xawoon a déconnecté tuuti ci actualité sénégalaise parce que li may gis neexuma damay gis tout le ay ay bad bad thing en fait des mauvaises choses en fait et quand je vois ça je zappe en fait su ma gisee ay diw rey na diw diw gor na diw diw def na lii du ma sax dugg ci euh, ci actualité bi di xool parce que man bëgguma lu métti. Mm-hmm. man damay bëgg tout le temps euh, nit ñi di di di di happy di béggee xam nga économie bi di dox industrie bi di dox jeunesse bi di di formé wu engagement euh, yi nga xamante ne politique yi am nañ ko ñi concrétiser ko man loolu laay bëgg a gis lire ko kontaan mais après quand je vois honnêtement quand je vois les choses duma sax attardé wu di cliquer parce que bëgguma bëgguma lu négatif en fait Mhm. comme comme mais il faut ma réfléchir rafraîchir <laughs> mémoire bi un peu pour nga xam actualité yi. Sénégal nga dëkk mun munu ñàkk nga am yoo xam ne da nga koy suivre fi ay audio am na fi ay vidéo ay lémotif am na fi ay rey am na fi comme tu dis est-ce que jeunesse ngay gis loolu de loin ban yi ngay xoolee léegi Sénégal quest que tu te dis Sénégal xàmmeetuma ko lan nga lan ngay lan ngay wax boo gisee loolu weerante bi bëri na rey bi bëri na récemment benn xale. bu huit ans euh, ay mineurs sax ñoom ñoo ñoom ñoo teg coup boobu noonu. rey ko mm. lan nga gisee violence bi ñi xeex seen école euh, lan ngay ban ëy ngay xoolee Sénégal boo boo toogee foofu dama parce que dafa nekk euh, dëkk boo xamante ne autant peut-être ñun bu ñuy gën a nekk xale sax amoon nañu chance rëcc ci loolu. neexoon na mais léegi àddina bi ba c'est le monde ah mais man comme Sénégal sénégalaise la donc Sénégal moo ma ñor Sénégal li ma fi gis ay da doy na waa trop doy na waa trop sutura amatu fi yërmande amatu fi respect amatu fi du ñëpp nag je ne globalise pas mais am na ñenn ñoo xamante ni euh, voilà il ne il ne respecte pas les euh, euh, nu sax les les grandes personnes parce que temps bu yàgg ba am na ñoo xamante ne du ñu wax kenn wax <laughs> mais léegi. man dama tiit en fait da gis kilifa bu wax gis xale bu jóge fële tontu ko ba mu neex après ñu def ko ay foo ah, loolu dafa nekk loo xamante ne ça me fait mal vraiment mhm. ça me fait mal ni ma la ko waxee rek quand je lis les gros titres la xam nga je je zappe en fait du ma du xool parce que bëgguma am lu ma métti bëgg naa ñii delluwaat ci seen valeur delluwaat ci éducation delluwaat ci respect lu am solo la parce que dëkk bu amul respect euh, dëkk boobu. dëkk boo xamante ne la doo sax comprendre. Mhm. voilà alors benn cas rek laay bëgg nga wax pour côté violence bi. Mhm. gis nañu mineurs yi léegi violence violence bi ci ñoom la gën a bëree pour xeex école comme ni mu la xale bi huit ans bi ñu nekk ban message ngay lancer en tant que artiste en tant que euh, chanteuse et actrice dan ban message ngay lancer jeunes yooyu noonu surtout mineurs yi nga xam ne tey soo sont devenus bon le message je vais le lancer aux parents. parce que ku ne mineur xam ne responsabilité parent am la nekk parents yi nañu éduquer seen doom yi bañ a démissionner ci éducation wu seen doom yi dafa am solo parce que éducation tey bu baaxee baaxal na réew bu bonee tey réew ba bon na parce que je sens que dafa am benn démission boo xamante ne parents yi ñu ngi koy def ah du ma globaliser comme ni ma koy waxee à chaque fois il faut que parents yi jël seen responsabilité certains parents yi jël seen responsabilité par rapport à l'éducation des enfants c'est très important di am benn œil regardant ci xale yi mais boo juree doom rek jur ko pour medd bi jur ko pour lu ma def baax na jur ko mënaluma ko dara jur ko je sais pas voilà loolu la ñu war a bàyyi en fait jël seen responsabilité yar seen doom jéem a limiter jur yi parce que tamit jur yu ëpp yëpp mooy indi ñàkk contrôle bi parce que da ngay dem da ngay gis parent boo xamante ne day bëgg woo benn doomam sax balaa muy woote benn doom dina woo doom yëpp tellement ko dafa njaboot xama ba du xam sax kan ak kii mooy kii donc loolu bu amee rek mooy parents yi euh, ñi ngi ñi ngi euh, ñi ngi démissionné ci ci nga xamante ne mooy seen éducation donc parce que du ñu mën a contrôler en fait xale lan la ñuy def. Mm-hmm. donc yi laay lancé message encore ñi bañ a euh, di seetaan seen doom yi ci lu leen neex parce que doom sam papa da ko na wax yàlla na ko yàlla yërëm ne bant la. danga koy yar jubbanti ca bu mu tooy bu woowee rek day damm. Hmm. te li ñuy wax jooyu xale moo gën jooyu mag xale bu nekkee xale bu ndaw nga yar ko dóor ko ba muy jooy moo gën nga bàyyi ko ak mu dem ba màgg yow mag bi mu jooy loola. Hmm. donc nañu éduquer xale yi vraiment loolu rek laa emploi parce que xale yi euh, voilà ñoom euh, c'est des innocents en fait c'est les parents qui doivent euh, voilà les éduquer. convenablement pour société bi mën a avancer. Mhm. xam naa ne amoo jot euh, temps bi da delluwaat ci cours yi yooyu noonu te il nga seeti ñi fi nekk xam naa daal tu es <laughs> mais ah, dernière question dernière question question peut-être en tant que hmm. comme acting yooyu ngay jàng mm. euh, peut-être acti actrice mën naa la ko wax yaa ma koy sa maa la koy wax sax ngay reetaan mais actrice nga parce que nga benn série alors tey soo gisee benn duma la wax sax nga wax si cas boobu Mariam Dial euh, dépressif ah. euh, ñu gis ko est-ce que duma la wax madame Dial mais est-ce que cas boobu mës na ñëw rek nga emporté wu ñu def la loo xam ne métti na la ci commentaire ci dara nga nga nga nga bu nga pété les ba xaw a dépressive mën na ñëw ay cinq minutes. nga xaw a dépressive tuuti rek après est-ce que mës na dal lu la metti noonu ba ba ba kii la euh, mettre le hors de toi. non moom dama koy masawu. Mhm. je sais pas si l'information est vraie ou pas parce que comme li ma la wax rek am na yeneen yoo xam te dañ koy relayer. Mhm. te euh, du nekk euh, doo doo mën a xam véracité bi en fait mais bu fekkee ne bon mi ngi mi ngi mi ngi souffrir de dépression. yal na ko yàlla yëkkati. yal na yàlla fëgg bopp bi. mais Aïda comme ni ma la ko waxee cinq ans ah, man lépp lu bon parce que je ne dis pas que euh, du ma lire en fait euh, actualité mais su ma gisee titre bu bon rek du ma xool muy ci man muy ci keneen ju ne regarde même pas nee naa wax na ko ba ñëw sama entourage dama ne bu ma kenn jottali ay ay commentaires yu négatif mhm. loolu yàlla jàppale na ma ci samay entourage bu ñu may yónnee ay message fan ay vocal ma ay commentaire day nekk loo xamante ne lu may neex lay doon lu may encourage lu may motiver man xaw ma lu bon Aïda bëgguma ko gis yàlla na ma ci yàlla musal su ma xëyee teg sama tànk ci suuf li may njëkk ñaan yàlla yal na ma yàlla musal ci lu bon yal na ma yàlla musal ci wax ju bon yal na ma yàlla musal ci fu ñuy jëfee lu bon te macha allah depuis bi may prière loolu yàlla mi ngi ma siy jàppale. Mhm. donc euh, je ne pas à à ce genre de de trucs là des commentaires euh, négatifs yoo xamante ne. d'aller déstabiliser, malgré euh, voilà, tout le qui. J'aime pas ça du tout. Mm -hmm. Je suis très, très, une, une, je suis une personne très positive en fait. Mm -hmm. Très positive. Moi, da ngay am benn sikk sax ñëw ne ma yow xoolal sama lii ma ne lii dafa rafet lii dara nekku ci tu vois et que dans dans leurs yeux dañuy dañuy dañuy reprendre waat confiance dañuy ne ah pourtant de na ma lii ma ne ko kooku de bët yi baaxul mhm. <laughs> kii voilà meloo melo melo nii meloo nii j'essaie toujours de donner aux gens euh, de la confiance te foog naa loolu moo am solo. Mhm. Mhm. alors kontaan nañu lu gàtt la mënoon nañu yaatal waxtaan beeg yooyu noonu. maa gën a kontaan euh, vraiment euh, xanaa foofu nag di nga marié wu noonu ñëwaale parce que fu mu nekk nii moom jigi nag jot na nag ah jot na de hmm? xanaa di nga wut benn <laughs> benn français foofu noonu indaale ko présenté ñu ko ñu. <laughs> jot na de nii nii rek. <laughs> non. ba tey pareegoo pour mari. non pareegu ma nag vraiment pareegu ma nag man moom. Mm. pareegoo ba tey mari. non pareegu ma nag. mais kii gi attends tey nag il faut nga wax ñu dëng lu tax mariage tamit nga koy daw nii boobu ba tey. bon jekk nga ay yow da wala warugal ba nga fa laajoon. <laughs> moo tiital gars yi ma laaj yëpp loolu yëpp dàq ñu la j'aime pas voilà j'aime pas. Ah. man moom bëggoo mari yow. non bëgguma mari yow. ah non bëgguma mari am jëkkër. <laughs> non non pas du tout. bëggoo am doom. si bëgg naa am doom. ah mais balaa nga am doom ba nga am jëkkër. waaw pour le moment nii bëggu bëgg bëgguma am jëkkër parce que j'ai plein de projets en vue yoo xamante ne peut-être góor bu ñëwee mën na ma ko yaakaar parce que. Euh, li ngay bëgg euh, defal sa bopp. Mhm. indépendante euh, voilà mën na am boo duggee ci sëy parce que ñu bëri lu leen gaare sëy moo leen gaare surtout voilà. boo nekkee jigéen boo xamante ne danga nga da nga ambitieuse aussi te t'as d'autres projets euh, personnels yoo xamante ne da ko war a réaliser. Mhm. boo gisul euh, ku la si mën a jàppale rek day metti moo tax man góor moom dama ko jël multiplier ko par zéro. zéro teg ko fële. yaa ko wax de <laughs> alors gis nañ la nga fresh nag maa ngi wax dernière question rek mais dañ doon gis nga fresh nga kii xam nga def say cheveux maquillage bu doy waar. ah def say basket seen naa après nga jëlal ma <laughs> ci kaw ba ci suuf Guigui ba mu ñëw Sénégal nag dafa bees tàq donc euh, wàññ nga pois bi aussi maa ngi gis ne wàññeeku nga ak yooyu noonu xanaa bëgg nekk taay fii nag yooyu noonu. waaw xam nga école bi ma nekk di dañuy def sport aussi. Mm-hmm. donc man soo gisee euh, dañuy def danse parce que cinéma théâtre la en fait donc théâtre comme genre comédie musicale et tout donc su may def sama yenn scène yi léegi suñu prof yi ay jigéen lañu dañoo sivert yooyu xam nga jàpp yooyu am pectoraux yooyu même bu ñu def sama danse dañuy ree ba sonn dañu may naan naa wàññi sama fes yi ah Guigui il faut diminuer les fesses c'est mhm. donc du coup euh, man je me donne à fond même euh, def sport damay benn salle mhm. de sport parce que pour gère que boo nekkee cinéma aussi il faut nga defar sa yaram comme man bëgguma chirurgie en fait donc bëgguma chirurgie dem ñi may ah, wàññi kon yow mosoo def chirurgie non je ah. n'ai jamais fait waaw. waxtaan wax nañ ko fi ba. ba sonn waaw c'est vrai foog naa ko def chirurgie du dem di wàññi ñi koy naan sa hanche yi sa kii dafa ngante nga koy dem di wàññi. Mhm. donc euh, par donc euh, voilà moo tax euh, voilà yaa ngi fresh ni je me maintiens c'est tout. Mhm. je me bopp bi VIP hair moo fi jaar nañ ko ma somb. moo jaar aussi si kanam gi comme toujours rek su may demee ba tey moo ci jàpp bàyyiwul. bi mu ñëwee nag ma ne ko dama am émission waa Sénégal dañu may sees si mu ne ma ñoom defal ba mu baax vraiment. Mhm. et j'invite toutes les femmes euh, ñu bëgg rafet mhm. ak euh, euh, nañ mu ñëw. Hmm, vraiment ni nga ko waxee sànq gars yi namm nañ ma. namm nañ ma <laughs> waaw mhm. namm nañ ma. mais nañ xam ne jàmbaar dawul dafa wuti doole heureusement que j'ai des fans vraiment fidèles yoo xamante ne ñu dem naa ko pour. ouvrir euh, d'autres horizons ah kontaan nañ ci loolu parce que bu ñu ma gisee ma nekk ak yenn certaines personnalités foofu dañuy kontaan ci loolu dina wax ne bientôt rek incha allah ci ci ci yu bees côté musique euh, côté cinéma et euh, voilà. incha allah alors comme comme comme actualité Sénégal ñu ngi la maa ngi la ko doon laaj sànq amoon na loo xam ne nag sa copine wax dëgg yàlla ñu dégg ko ci benn audio duñ ko mësul dégg ci benn audio moo benn doomu am. jokkalante boo xam ne nit ñi rafet du ko woon bien vrai que juboo nañu léegi mais euh, maa ngi dégg ne am na loo si dox euh, may ma ci loolu. xam nga xam nga Oumou Sow moom sama sama jumelle la sama lépp la mu nekk pël ma nekk séeréer te ñëpp xam nañ ne kal lu mu lu mu firndeel ci séeréer ak pël Oumou euh, nekk ku baax ah Pendo aussi nekk ku baax parce que bi problème bi amee Oumou Sow mënul am problème man ma toog neutre ci. dama woo Pendo vraiment mu mu tontu ma tontu bu dal sama xel bu sedd sama xol mu ne ma Guigui coow la rek seytaani moo ñëw seytaani moo ñëw yoo xam nga umu fi ma toll ma ne ko man loolu moo ma jaaxal nii laa ko ko ma ne ko Pendo man de umu fu muy xeexee nga ñëw xeexale ko man loolu euh, moo ma moo dul bett mais lii tey bett na ma mu ne ma erreur la ah vraiment umu sama sama wax wax lu baax ci umu saw pendoo ku baax la man bañ na ko ba moom jour Noël la juddu en fait donc man nawel sax laa koy wooyee parce que jour Noël la juddu donc euh, ñu am man ak moom relation yu baax ma dem clipal sama yaay mu ñëw teew ci kaw clip bi Sow ñoo fa nekk vraiment wàccee clip bi man affaire bi daf ma bett daf ma choqué ah mais bi ma ko oowee wax ak moom mu ne ma amul benn problème ah man ak Oumou benn lañu dinaa woo Oumou jéggalu ko te loolu moo am ñoom ñaa ñu nekkaat benn Oumou aussi bi ma ko wooyee ne ko wax naa waxtaan naa ak Pendo mu ne ma gii Guigui danga baax rek waaye xam nga ne ñu ñëpp benn umu ko baax la. Mhm. sans façon man li tax ma bëgg ko maa ko xam li tax ma nekk ak moom ci artiste Sénégal yëpp ma tànn ci umu sow di dugg néegam di tëdd lalam muy dugg sama néeg tëdd sama lal muy sol sama yére may sol yére ñuy solante yére jaaro bi may clip umu sow jaaro dàll lépp la ma indil jox ma te ay or laa la wax mooy sama clip yaay bi umu sow ma ko indil ma takk ko. Mhm. donc xam nga ne kooku nekkatul artiste nekkatul dara nekkatul collègue. ay sœur lañu en fait Pendo aussi nekk ku baax te seytaane fu mu xeju rek lay dugg yàlla def na ñoom ñaar ñëpp delluwaat nañu ci jàmm yàlla na jàmm yàgg Sénégal parce que ay jigéen lañu wax ji dafa war a rafet rek ñu nekk ñu ñëpp benn.